jël baax na. Cheikh Moustapha nee na ñu ngi joxe kàddu yoo xam ni nee na baatu ndigal moo nu ko jox. wootee say kàddu war naa wér te jot nee na nag alhamdulilahi rabbil aalamiina nee na foofu lay tàmbalee ay kàddoom ci turu jawriñ ji nga xam ni ay kilifaama ko jiital mu jiital ko muy sëriñ Fallilu waaye ci turu kilifaam ga nag di wasilaam wi di sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall ñu di ko wooyee Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ci turu ko tànn moom di jëwriñu Cheikh Ibra Fall ji Cheikh Modou Moustapha di Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda kaddu yëpp moom kaddu yëpp moom la ñii fi toog di ay rakkam la tax ñu fab ndigal Serigne Touba la jox ko moom la tax ñu fab ndigalul la jox ko ko moom mag gi mu mag tey ci kër Cheikh Ibra ñu ni ko yaa fi jëmmi Cheikh Ibra Fall ji kër gu nekk ka fay mag mu def la ngay jëmmi kooko di jëwriñam nag nee moom itam ñii mu bokkal jataay bii nee na ay bàyyi la fi am ak i nijaay ñi ci des di ay sëriñam waaye waaye baat bi benn la far. nee na moom de amatu fi dara lu dul ab sëriñ far. am murit nag la wax bu dëgg. am nag la wax bu dee dëgg. bu ko ab sëriñam santee. bu ko ab sëriñam santee. dana ko def bu dee jëf dana jëf. bu dee jëf da dina jëf. bu dee wax dana wax. wax la it loolu moo waral li wax ko. loolu moo waral moom mii ngir kon na jëwriñu Seex Ibra Faal ja. kon nag jëwriñu Seex Ibra Faal ja. ci turu jëwriñam ja. ci turu jëwriñam ja. ja. nee na mi ngi sant yàlla suñu borom. di sant jëw nañu Serigne ji nga xam ni. mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha. fam ndigal la. fam la. muy lii ñu doon jëfe. muy lii ñun Baye Fall jox ko jëwriñam ji toog nag. Cheikh Mouhamadul Bassirou. mu teg ko ci loxol. mu teg ko ci loxol. jëwriñu Cheikh Dafa ji. Cheikh Modou Moustapha. ñu ngi ñaan yàlla sunu borom mu yàggalal ñu seen dund gi. ak seenu wér ak seenu man ak seenu tal ah, nee na cant gii nag day mel ni ji jëf rek day mel ni ji jëf rek moo daj yoonu murit moo daj yoonu murit kenn ku ne kenn ku nekk amoon nga ñàgg-ñàggi xol amoon nga ñàgg-ñàggi xol ci barab bii ci barab bii jëwriñu Sëriñ Tuubaa yi doon defarlu ndax budul yow ndax budul yow di sa mbokk di sa mbokk wala ku bokk ak sa mbokk wala ku bokk sa mbokk ñu def ko fii. ñu def ko fii. lu neexul suñu borom. lu neexul suñu borom. neexul Serigne Touba mi ber barabam. neexul Serigne Touba mi ber barabam bii. jëwriñu Serigne Touba ji nag. jëwriñu Serigne Touba ji nag. yónni Cheikh Mamadou Bassirou. yónni Cheikh Mamadou Bassirou. ja. lam jàppoon rek am. lam jàppoon rek am. mooy. mooy. lu ndigal Cheikh Ibra Fall. dana ko jëfee. lam ko digaloon nag kon jëfe na ko. kon nee na alhamdulilahi rabbil alamin ñun bàyyi faal li mbooloo mi bari bari. nee na li mbooloo bari bari. buñ doon xar xol yi. buñ doon xar seeni xol. di ko wane. ko wane. ñu baax ñëpp. ñu baax ñëpp. ñoo bokk cant gii. ñoo bokk cant gii. ñuy sant jëwriñu sëñ Tuubaa ji. di ko sant jëwriñu Seex Rafaal. jëkk ko defal. jëkk defal. ndax ku ne. ndax ku nekk. bëggoon nga lii sëñ Tuubaa digle. bëggoon nga lii sëñ Tuubaa digle. Seex Mamadu Muntaxaa. Seex Mamadu nga man ko yow. nam ko bëggee woon. nam ko bëggee woon. dafa jiitu ci xol yi. dafa jiitu woon ci xol yi. nooyal leen népp. nooyal leen népp. ndax fab sa alal. ndax fab sa alal. saa borom baaxee xam. saa borom baaxee la ak xam. nga xam ni. nga xam ni. xalaat bi koy def fii. xalaat ji dañ koy def fii. defoo ko ci ndigal. defoo ko ci ndigal. da koo def ci kaw bëgg rek. da nga koo def ci kaw bëgg rek. ndax cëru jàmbur la. ndax cëru jàmbur la. nga dox ba borom cër ba soxla ba borom ko. laaj la ko. laaj la ko. ci ay ci ay teggin. ñëw dindi ko. ñëw dindi ko. nga ni alhamdulilahi rabbil alamina. mel ne ku ñàkk ba noppi. mel ne ku ñàkk ba noppi. te am te am. sant sa borom sant sa borom. loolu sëñ Tuubaa rek ko mën ci ñoñam. te nee na kenn ku nekk. Ah, bari na ñoo xam ba ni na ñoo xam ne ba egsi ci yow ni la. maa ngi sant sunu borom. maa ngi sant yàlla sunu borom. di sant sëriñ bi. di leen sant ci ndigal lii ngeen jëfee. di leen sant ci ndigal neel jëwriñu sëñ Tuubaa ji neel jëwriñu sëñ Tuubaa ji moom rek la suñu borom baaxee loolu moom rek la suñu borom baaxee loolu yi kon nag nee na kon nag alhamdulilahi rabbil alamina ci suñu turu kilifa ci turu suñu kilifa ñii ñu jox kàddu gi ñii ñu jox kàddu gi la gën a cate lan doon ci la gën a cate lan doon ci ñoom waaye la gën a dër nag lan la gën a dër doon ci ñoom ndax cër yi am daa bari ndax cër yi am ci ñoom daa bari waaye ñu jaay yëpp nag ñu jaay yëpp nag jënd ko benn jënde ko benn muy ak taalibe loolu rek lañ doon ci ñoom duñ seen doom duñ seen jarbaat ab taalibe rek lañ doon ci ñoom nee loolu nag waxaale na ku bokkal Cheikh Rafaal ñi bokkal Cheikh Rafaal ñëpp ci njëkk di la feeñ te nekk ci kanamam tàbbi nañ ci biir kàddu seen baay yooyu tàbbi ci biir kàddu seen baay yooyu seen nijaay yooyu seen sëriñ yooyu lépp a ngi ci biir. bari nañu. bari na ñooñu. ñoo nga ca réew ma. ñoo nga ca réew ma. waaye nag. waaye nag. Ah, taw bu daj fépp. taw bu daj fépp. di ceeba moo xam ni. di ceeba moo xam ni. daa tooy xëpp. daa tooy xëpp. mandarga yi ceeba di ah, di wane yëpp. mandarga yi ceeba di wane yëpp. mu indaale ko mu indaale ko. ngay gis. ngay gis. kooku daal ku am saw jiwu. daal ku am saw jiwu. te sa njortu rafet. te sa njortu rafet. ba yeboo nga def ci ceeba moom la nga am. tey seenu njariñ rek tey seenu njariñ rek tey seenu njariñ bu ñu mas a jox nag boo ñu mas a jox ñun Baye Fall yi ñun waa kër Cheikh Ibra Fall ñii toog ci dëkk bii tudd Touba tey lañ ci mas a dajeek ci lii ndigal ci lii ndigal Cheikh Mamadou Bassirou ndigal lu ñu mas a digal ñun ñu mas a digal ñun waa kër Cheikh ci dëkk bi ñu nekk buñ ko fàttewul ndigal lii mu koppi xéewal ñu ngi la koy seereel nee na baat bi ko sëriñ bi joxoon ñam yi nag ñam yi nag moom mbàkke ñam wu ñu ni ñam wu ñu jortu ni ku samp kër di ko togg murid yi togg nañ ko boo demoon Saalum boo demoon Saalum loolu du fa lamb loolu du fa lamb waaye Touba gi nag waaye Touba gi nag ak ñalam tumuranke na fi xeetu ñalam wu nekk nag yéen yi sëf ak yéen yi dànk yëpp ak sëf ñal ak daal lépp ñëw na fi waaw day sant rek de waaw nee na da cee xaj dong moo tax muy wax loolu ñii ni ko wax loolu di ay kilifaam danoo daa sawar lool ci waxal kilifaam yii waaye ñun tamit ñu sawar ci waxal leen nag ndax moom ñi naa ci wax ndax nee na ñi may na ci li muy wax sëñ Basiru ñu bari ñoo leen gën a kilifa nee na ñu bëree bëri Cheikh Moustapha mën naa waat moo leen gën a kilifa xam nga xam na fa mu waxee nee na xam nga fa mu waxee yow nangul na ma ko itam na nangul nga ko itam kon ci turu kilifa yi nee na kon ci suñ turu kilifa yi jëwriñu Cheikh Rafaal ja ja ndigal li ko Cheikh Mamadou Bassir indiloon ndigal li ko Cheikh Mamadou Bassir indiloon jëwriñ jëwriñ sëñ di Cheikh Mouhamadou Mountakha kilifa yi mu àndoon jëf ko kilifa yi mu àndoon jëf ko mooy mbooloom mooy mbooloo mooy mbooloo mi nga xam ni mooy nga xam ni seen buntu ci Serigne Touba seen buntu ci Serigne Touba mooy Cheikh Ibrahima ñëpp a ñëw ñëpp ñëw nan nag fépp ci ñëw fépp ci ñëw lépp ci ñëw ka ca nee na ka ca jiitu mooy kenn kenn joxoon ndigal li mooy kenn joxoon ndigal li jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ji Cheikh Modou Moustapha sëriñ am di faal moom sëñ Modou Mbenda lu mu am de nee na lu sëñ am di faal am ak ñu mu am ak ñu mu am teewe na liggéey bii loolu nungu ngeen ko nee loolu nungu ngeen ko de ah, waajuru mag wa waajuru mag wa sëñ am di faal moom sëñ Assane Fall ak njabootu maam Assane Fall gépp ak njabootu Cheikh Serif Assane Fall gépp nee na ba yóbboo nga xool ci toogaay bii rek lépp lépp a ngi fi lépp Serif Assane Fall ci jotaay bi ñëpp a ngi fi Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng kër Cheikh Modou Moussa Fall moom mi sañ am di def muy jëruñu liggéey bi lam bokkal Cheikh Moustapha ñim bokkal Cheikh Moustapha nee na waxoon ni ñëpp a ngi fi ci biti waaye ñëpp a ngi ci biir baas bi sax far nee loolu doy na sëg njabootu Serigne Mbacke Fall xëy na Diop Serigne Cheikh Cokke Fall jëwriñ jooje nga xam ni. jëwriñ jooje nga xam ni. jëwriñam yëpp fi. jëwriñam yëpp a ngi fi. seen lépp a ngi fi. seen lépp it mi ngi fi. loolu seen moom Basiiru. loolu seen moom du Basiiru. ku santaane defal la ko. ku santaane ñu defal la ko. la bëgg am na. la nga bëgg am nga ko. lan la bëgg am na. lan la bëgg nit am na. sëriñ Fall moom sëriñ Mortala. sëriñ Abdou Fall moom sëriñ Mortala Fall. muy sëriñ Abdou Rokhaya. ku ne xam na ni. kenn ku ne xam na ni. Ah, juróomi jëwriñ sax. juróomi jëwriñ lañu sax. juróomi jëwriñ. juróomi jëwriñ. yu àndandoo. tool ban bokk. ca tool ban bokk. ñëwandoo nañ fi ñun. ñëwandoo nañ fi ñun. lan ñuy jur jur. lan ñuy ku nekk di wax ni. ku nekk di wax bi daa bëgg ñu xam ni. sëñ bi bëgg ñu xam ni. léppam ñëw na. léppam ñëw na. ñëppam it ñëw nañu. waaw sunu waajur wa sëriñ Cheikh Ngunda Fall. sunu waajur wa ni wax sëriñ Cheikh Ngunda Fall. moom ku ne xam na ni. ku ne xam na ni. seenu teewaay ci seenu teewaay mooy li ñu jubloo wax rek nee li ñu jubloo wax fenn desul dara desul fenn desul dara desul sëriñ Cheikh Mbawar Fall sëriñ Cheikh Mbawar Fall jëwriñu sëñ Aliou Fall Mbawar jëwriñu sëñ Aliou Fall Mbawar man mii di jotale kàddu gi nee na moom mii di jotale kàddu gi sama waajur toog nee waajuram wi toog di sëriñ Cheikh Mbacke Fall mii toog den la yow bi mu nuyoo sën jaay laaj la la njëkk wax sën jaay laa la laaj na la laaj na la la njëkk wax la njëkk wax maanaam li jublu mooy. nee lim ci jublu lépp mooy. bëgg a jotal. bëgg a jotal. ki jox woon ndigal rek. waaw sëñ Mor Talla Fall moom sëñ Ablaye Fall Ndar. sëñ Mor Talla Fall moom sëñ Ablaye Fall Ndar. ak waa kër sëñ Ablaye Fall Ndar ñëpp. ak waa kër sëñ Ndar ñëpp. wala gépp wala gépp. lépp teew. lépp teew na fi. lépp ñëw nañ teew teew fi. Ah, sunu sunu maam bii. sunu maam jii. di sunu baay. kër maam Abdou Sakkour Fall nee lam fa doon su ko waxaalee nii mu koy waxee di leen ko xam ñaari ñaareel bi sët la fa bu dee wàllu kër Cheikh Rafal gi sëñ Abdou Sakkour maamam la rakk Cheikh Mourou Moustapha la ñu njort ni. lam fàtte. lam fàtte. te ab jaam day fàtte. te ab jaam day a bañ a wax. sëriñ Cheikh mun na mii. sëñ Mbacke mun na mii. sëñ mun na mu Cheikh Mamadou Bassir. sëriñ Cheikh Bintou Fall. ak sëriñ Moustapha Fall moom sëñ Mamadou Yendali. nee ku jàng nam nabi. ak sëriñ Moustapha Fall moom Cheikh Abdou Aziz Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall nee na xam ngeen ñu bari ci biir nee bam nee ñu ngi sant njabootu Cheikh Fall ga doyen na sëñ Cheikh nee na tudd nga ñëpp tudd nga lépp ñëpp ñëw na waaw ak rakkam yi sëñ Moussa mu sëñ Fall Fatikan lépp ñëw nañ fi daal ne bu doon wax fàttali nitam kenn du ko songu ni ne ni ne la waxoo ma ndax moom mi di wax yaa ko yëlif <laughs> waaw mooy suñu àddi suñ benn taal yaa si lay wax waaw kon kàddu yooyu moo bàyyi koo ci kër Cheikh la Fall sëñ Cheikh Mbacke Fall mi toog jël ndigal ci sëñ Sidi Fall mu sëñ Mourou Sarr jox ko sëñ Moussa Fall fa lilu Fall mi ngi tudd kàddu ciy jéggu li yoonu baaxoo des koo def rek waaye ñi mu àndal yéen ñii may waxal nungul ngeen ko seeni xel moo gën a jot am xelam seeni xel moo gën a rafet am xelam waaye bokk na ci nag la nga bëgg a defar yaa cay sonn bokk la la bëgg nga defaru ak defaru rek lañ bëgg faal kon nañu defar ak defaru Ah, ah, waaye ànd ak jiw ñi nga xam ne sëñ Abdoulaye Fall la